asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci kilifteefu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif zal de Mouride yal na fi yàgg lool te ànd ko wér Serigne Sidi Mbacké xalifatu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal na ko sun borom may fan wu gudd wa ànd ak wér gu yaram mooy dellusiwaat di sant mbooleem njabootug Serigne Touba Xaadimu Rasul gépp rawatina taalibey Serigne Touba yi di yëkkatiwaat ay kaddu mu jëm ci woote bis bi nga xamante ne bii bisub juram la di bisub sëriñam di sëriñ tubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bis boobu nga xam ne sëriñ tubaa xaadimu rasul moo waxoon ca njaareem ci atum 1914 bi Cheikh Abdoul Ahad feeñee jamono mu ne képp koo xam ne fekkee nga bisam bu delsee loo mën ci teraanga nang ma ko ci defal ndax ku ci def teraanga dootoo tàggoo ak teraanga sëriñ Sidi yéen a teraanga jooje julit yëpp waaye sëriñ Tuubaa yëmut ci loolu mu wax ne itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ku mën aw turam sun borom jéggal la say bàkkaar du la tàbbal sa wara ba mag ñi doon bind turu Abdoul Ahad loolu itam sëriñ Sidi Mbacké yéen ko jullit yëpp sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mi nga xamante ne bii moo waxoon ne su ma nammee tas yaakaari sëriñ Tuubaa ja yàlla naa da wute ko te kenn na tabli wut ne yaakaari sëriñ Serigne Touba jooju Cheikh Abdoul Ahad tësu ko ndax matale na ko Cheikh Abdoul Ahad moomu nga xam ne moo dégg Serigne Touba wax ne jaawartu bil furxaani rabbiyal muin mu dem defal alquran kër goo xamante ne bii dana mat dëkkandoo sëkk ak Serigne Touba xaadim rasul ci penku jumaa ji moom moomu nga xamante ne bii bi mu xoolee ne dëkk bi lotusi nañ ko ku ne am fi kër waaye borom dëkk bi amagu fi kër mu def këruk sëriñ Touba goo xamante ne bii ba addunay tukki yoonu murit di ko jariñoo Serigne Abdoul Ahad moomu nga xamante ne bii yéen jullit yi ak texek adduna ak àggog alaxira moo tax bi Serigne Touba ñaanee ne maa ngi ñaan sun borom mu jéggal képp koo xamante ne bi ñàq nga jëme ko ci jumaay Touba sëñ Abdou Lahad andiwaatal ñu yokkub jumaay Touba ngir ña fekki wutal liggéeyub jumaay Touba mën a def seenu ñàq ci liggéeyub jumaay Touba Cheikh Abdou Lahad moom nga xamante ne bi kër gu mujj gii nga xamante ne bii moo di armeel yi bi mu feesee tam wóor ko ne murit yëpp Tuuba lañ jëm si mu defal leen armeelu Baqiya képp koo xamante ne bii nag yii may wax lu ci nekk muccoo ca sëriñ Sidi nee na mu ngi lay tàllal loxo di la wootu ci woo ci bisub jàmbaar jooju nga xamante ne bii moo waxoon ne ku liggéeyal sëriñ Tuuba murit yee la war a fay te kenn nattable wut na sëriñ Abdou Lahad Mbacké liggéeyal na sëriñ Tuuba mooy ki nga xam ne saa yoo duggee Tuuba jàkkaarloo ab liggéeyam boo génn Tuuba romb ab liggéeyam mu tëdd nag ak alxuraan dëkk ak moom ba faw ñaanoon sun borom subhanahu wa taala seereel murit yëpp nag ne seere naa ne ay murit ngeen te du ngeen yem ci ay murit ay saadix ngeen kon kooku nag bu waxee ne ku liggéeyal Serigne Touba murit yee la war a fay bisam bii del siwaat nag Serigne Sidi nee na mi ngi ciy woo képp koo xamante ne bii bëgg ngaa taqoo ak taraanga adduna ak mi ngi lay woo ci bis bi képp koo xam ne bëgg nga boo faatoo suñu borom jéggal la say bàkkaar Serigne Sidi nee na mi ngi lay woo ci bis bi képp koo xam ne nag laal nga ci Serigne Touba ci pas-pas mooy xam doom yi nga xam ne ñoo jaayanteeg Serigne Touba tàmbale ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha muy taalibey doom yi ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada nee na mi ngi woo buntu kër yëpp bu doom yu jigéen yi la ma ngi koy tàmbalee ci buntu kër soxna Fatidia ba ci buntu kër soxna Maymuna bàyyiwu ci benn buntu kër waaye bu fekkee ne taalibee pas-pas yi ak xol yi la la ko tàmbalee ci sëñ Adama Gueye ma njëkk a ba ci murit bi mujj a jaayante barki démb Serigne Sidi nee na mi ngi woo buntu kër yëpp nag di woo itam buntu kër yi taalibee meen yi la ko tàmbalee ci kër Serigne Bosobe kër Serigne Sa Boso ak nu ci waay mën a laale ci njabootuk Serigne tubaa googu nga xamante ne bi ñoo di ay meenam Serigne Sidi nee na mi ngi lay woo di la woo nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal umma islami bépp nag moo xam foo ca mën a bokkee waaye képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sëriñ Sidi nee na mi ngi lay woo ci bis boobu di ci woo nag bépp doomu aadama ndax sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba Cheikh Abdoul rek la doon liggéeyal kon képp koo xam ne sa bopp sax na jëm kaw say tànk jëm suuf sëriñ Sidi nee na mi ngi lay tàllal loxo di la woo ci la 14 mai incha allahu rabbi di fukki fan ak ñeent ci weeru mais dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor yi bis boobu nag nee na mi ngi ñaan képp ku teg sa tànk Tuuba yal na yàlla far say bakkaari àdduna ak àlaxira képp ku teg tànk sa tànk Touba nee na mi ngi ñaan sun boram taqale la ak teraangay àdduna ak jooj alaxira sëriñ Sidi daal nee na ndabul xéewal la loo xam ne yéene na ko jullit yëpp mi ngi ñaan yàlla nag ñëpp ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm te lu fi waay sàkku sun borom defal la ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.